Senghor ña nga nga fay am taaga fay ak booy fay fay balaa muy fay <laughs> tey lamb Fils de ngay am fii ndeysaan ak saa fandu Fils moo daan léegi pakala saa moo éliminé Goro Sock ña ba wàllu wee ngi am caaka fay ak booy fay ku seetaan da fay <laughs> waay fay am na doole ci làmb ji ndaysaan fay am na doole ci làmb ji tey booy fay daw na jël ko caaka bañ na caaka bañ na caaka fay booy fay arbitre bi àtte na dox ci diggante Saa Fandu ak Fils de Batlen arbitre bi sifle na Boy Faye jàpp na caaka bañ na Boy Faye lu nar dañoo daje arène nationale caaka fay daan Boy Faye ñu daje waat fii ci terrain nu muy mujj Boy Faye caaka fay nu ñuy mujje fu làmb ji di mujj kan mooy dem final ci diggante Sa ak Fils de Batlen kan mooy dem final ci diggante Boy Faye ak Caaka Faye ndeysaan Boy Faye jël nañ ko jël nañ ko génn waaw waaw Faye da génn Boy Faye Caaka Faye Caaka Boy Faye Fils de Batling am na benn avertissement Safando am na benn avertissement cey lamb Boy Faye Caaka Faye Boy Faye Caaka Faye Caaka jëlaat na tànk ba Boy Faye doo ci génn doo ci génn doo ci génn Boy Faye waaw waaw doo ci génn Caaka Faye daan Fils de jàpp na fële nañ da bopp ba Fils nañ da bopp arbitre Fils de Balla daan na dem na final Fils de Balla dem na final Fils de Balla final war nga fi loo yëg. kon lu ñu naan yëg rek comme li ma la waxoon rek comme lu ñu naan ñu ay xale yu ndaw lañ waaw li pour ñun pour man du dara ci quoi. mu ne remake la yéen ñaar Adrien Senghor da ngeen a final da ngeen a dajewoon final yaag caaka fay mu daan la tey ngeen dajewaat final mbaa dina yomb. waaw comme ni ma la waxoon man moom ku ma ku ma dóor yar bi. na ma koy alaat incha allah waaw loolu kese la. ñu xaar la. jeex na tàkk maa ngi. bon saa. Thiaka maa lay nuyu. maa ngi lay fay. maa ngi lay fay. nga final waat fii ci terrain gaal gi loo yëg. waaw kontaan rek di ñaan yàlla may ma maa gagné final bi rek waaw. nga dajeeg Boy Faye arène nationale ko ko dajawaat ko fii ci terrain gaal gi éliminé ko seen diggante yéen ñaar lan la. waaw du man suma sek la rek waaw. Fils de Batlen da ngeen a daje final ca terrain gaal gi. terrain Adrien nga daan ko ngeen dajewaat fii final dina yomb. nee na ku ko dóor di ko abal yat. waaw di ñaan dooraat ko rek waaw. ndeysaan caag. Ah. ñu ngi noonu ci final bi dox ci diggante Abdou Karim Diouf ak Babacar Tine. Diouf moo leen ndi joor wala boog moo leen won ginnaaw Babacar Tine moo leen won kanam jël na ak Babacar Diouf Abdou Karim ëpp na ko Babacar da koy motam déet yëkkati na ko doo ci génn ci génn Babacar war na ko ndomba Babacar Diouf ak Abdou Karim wàcce na ko waaw waaw force na ko mu bañ ba léegi dara amagul mbaa da ngaa nar a rëcc déedéet rëccaat na la ilaha illallah eh xale ba rëcc na Babacar Diouf Abdou Karim Babacar Tine Abdou Karim Diouf ndeysaan Babacar Tine Abdou Karim Diouf sëñ Bass ma mbaa dina ci génnaat Babacar Diouf Abdou Karim Babacar Tine Abdou Karim Diouf kon Babacar Tine moo la wan moom nga jàkkaarloo noonu wala moo la wan ginnaaw Abdou Karim moom nga jàkkaarloo laami xale yi bu leen fàtte yéen a ngi jëm final ba jël na tànk ba Babacar jël na ko mu rëcc eh, xale yi ñaari xale yaa nga ca làmb ja ba tey daan na ko daan na ko ndeysaan Babacar ba kaay leen ci diggante Thiaka Faye ak Fils de Balla ñoo final noonu def mbokk ñu ngi noonu toll ci final bi dox ci diggante Thiaka Faye ak Fils de Balla dimanche janvier 2020 terrain Gaal Ngor production moo ñu fi woow ndeysaan ñoom ñaar ñoo finalu ña ngay lewaatoo ndeysaan ñu gën ko xam ci maam góor borom góorgóorlu <laughs> cey sëñ Bas yaay làmb ndeysaan ña ngay noonu di lewaatoo dañoo daje woon terrain Adrien Senghor ñu finalu Caaka Fay daan Fils de Batlen ñu daje waat fii ci terrain Adrien Senghor wala terrain gaal gi Fils de Batlen ne ku dóor dinga ma abal bi ñoo final waat fii ñoo final woon Adrien Senghor ñoo final waat fii ci gaal gi ña ngay lewaatoo ndeysaan ña ngay lewaatoo Fils de Batlen day bañ la ko doloon dalaat ko daa dugg ci tànk caaka faye mu suruxal ko noonu la ñàkke woon final bi bi yoon mbaa dina defaat loolu wala déet nañu xool fu waanante di mu jekki gëtam sëñ Bas caaka fay daje Bas daje naag ndeysaan nga noonu caaka fay fils de Batlen caaka fay fils de Batlen caaka fay jël na ko Fils jël na ko caaka bañ caaka ñandu na <laughs> Fils de Batling caaka fay Fils de Batling caaka fay ooy góorgóorlu la nga tëdd góor production caaka am na benn avertissement Fils am na benn avertissement bëre leen bëre leen bëre baaxu góor la bëre leen lamb fa la waaye ku daanu am gàcce Fils de Batlen 64 litres ñoo bindu nga finalu Caaka Faye 64 litres ñoo bindu nga finalu ay jàmbaar ngeen Caaka Faye éliminé Boy Faye Fils de Batlen ndeysaan xale la boo xamante champion la ci lamb moo éliminé Pakala Fils de Caaka Faye da doon jëli waaye da koo seen jàppante nañ Caaka jël na tànk ba Fils de bañ na waaw waaw Caaka Faye daan na ko jël bu Caaka eh, Faye Caaka Faye daan na ko jël Caaka Faye daan na ko jël